Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo ayu bés ngi nii ci réewum Sénégal ñuy waxtaane lu jëm ci wàllu mbënd mi ak jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñenn si ñoom ñoo ngi koy dund ñu bari ci askan wi doon nañu sàkku milliards yi nga xam ne dugal nañ ko ci wàllum inondation yi ci Sénégal maanaam ñu indi ci ak leeral am na ñu bari ñoo xam ne doon nañu wax ne assemblée nationale war nañoo jokko ubbi si ab enquête parlementaire journal bi di 24 heures xëy di ñu xamal naa ñu waa PDS parti démocratique sénégalais ñoom daal nañuy déposé déposé ab lettre ci taabalu Moustapha Niass mi nga xam ne nag li nga xam ne moom la ñuy sàkku mboolem projet yi nga xamante ni rek gouvernement bu Macky Sall teg na ko ngir na xeex lu jëm ci wàllum inondation ñu daal di koy càmbara xool ñaata milliards lañ si dugal ak milliards yooyu nan la ñu ko jëfandikoo am na ak luubal wala ak luq njur yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy di ko dëggal nee na am na ci ay ministre yoo xam ne ñoom la waa PDS daal di ciblé ku ci mel ni Aly Ngouille mi nga xam ne moom lañ dénk intérieur ak Serigne Mbaye Thiam mi ñu dénk wàllum ndox mi urbanisme Abdou Karim Fofana mi xam ne moom lañ dénk wàllum mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum finance ñi nga xam ne ñoo si laale directement ak indirectement ñëpp la ñu bëgg ñu daal leen di càmbara ci assemblée nationale yéen kaay gi di Sud Quotidien ak La Tribune xëy di ñu xamal naan ñu nelaw yu métti yi nga xam ne moom la waa assemblée nationale nekke woon yeewu nañu ndax assemblée nationale ji nga xam ne moom la ñu dëgmal assemblée nationale bu Sénégal yeewu nañ ndax jamono ji ñoo ngi sàkku ay information ci milliards yi nga xam ne moom la ñu tudd ci lu jëm ci wàllum inondation yi yéen kaay gi di direct news xëy di ñu xamal laal ñu askanu Sénégal ñenn si ñoom ñoo ngi xëy di laajte ne assemblée nationale am na njariñ ci réew mi wala amul njëriñ ci réew mi waaye nag leneen loo xamante ni jar naa wax mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku gi maanaam yor xaalis bu dul jeex waaye nag ba ñuy dem ca banle bu Ndakaaru loxoy kese la ñuy yóbbu ba pare nag di song nguurug Macky Sall am na ci nag ay opposant yoo xamante ni maanaam duñu ko defal askanu Sénégal waaye nag kañ la ñuy am ab opposition loolu la yéen kaay gi di direct news xëy ñu laaj yéenekaay gi di source ak yóbbu ñu diwaanu Touba ak lu jëm ci wàllum jafe-jafe yi nga xam ne ñenn su ñoom ñoo ngi koy dund ci lu jëm ci wàllu mbënd mi bëri na fa ay kër yoo xam ne ca Touba ndox mi daf koo nangu lu toll si juróom-ñetti kër ak juróom-ñaara ca Mbàkke lu toll ci fanweer ak juróom ci ay kër yoo xam ne maanaam ndox mi génn na seeni borom jamono ji ñoo ngi tol tolaan ci mbedd mi yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu dénk wàllum finance ak wàllum budget nee na coronavirus dafa poñe li nga xam ne mooy économie réew mi bu Sénégal da doon njaab mu dëgër waaye coronavirus jamono ji moo ko bloqué daal di koy téye yéen i kaay ñu xëy fekk fa Amadou Hott mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum économie la xam xamle nee na jamono ji bu nu waxante dëgg suñu croissance bi dafa coronavirus yéen i kaay gi de li quotidien ak Vox Populi xëy di ñu xaman naan ñu oto police bu commissariat bu ndaamaatu dafa yeboon ñoo xamante ni yoon daf leen a teg loxo ngir ñu yóbbu leen ca par parquet bu Jurbel oto boobee moo accident am na ci kenn koo xam ne ñàkk na bakkanam ab ASP moo ko doon dawal waaye da wax téléphone ba mu defee accident bi ba pare dafa naa maanaam dafa daal di daw yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Guinée Conakry nee na réew moomu bu ngeen fa déggee musiba ak mbelengaana bu mu leen bett ndax cour suprême daan nay dëggal candidature bu Alpha Condé Mohamadou Buhari moom nag daat nay wax ñi nga xam ne ñooy ay njiitu réew ci déndu Afrique maanaam bëgg a ay mandat ñu daal di koy teg ci suufa yéen kaay gi de libération xëy di ñu xamal laan ñu am na ab ñaawteef boo xam ne xew na sa mbuur maanaam sa sorti si njëba lu toll si juróom-ñaar ci ay góor ay waxambaane yoo xam ne dañoo yoroon ay arme ñoo séquestré juróomi jigéen na doon siim ak ñoom seen mari ngaañ maanaam tëddee leen ba seen xol sedd ñu bàyyi leen ñu dem gendarmerie jamono ji ubbi na si ab enquête am na ci kenn koo xamante ni teg nañu ko loxo réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Gaston Mbengue wax na ay jaar-jaarama wax na jafe-jafe yi nga xamante ni moom la dund ci lu jëm ci wàllum làmb ji nee na làmb ji si boppam maanaam daf koo ndólloo ndax dugal na ci xaalis bu bari boo xam ne daf cee perte wax na digganteem ak Luc Nicolaï wax na ci Gris Bordeaux mi nga xam ne moom Gaston jot na koo xaalis ba pare Gris Bordeaux nanguwu koo bëril ba pare delloowu ko xaalis ba Gaston Mbengue wax na la séq ak waa réew mi quotidien nee na 1975 la ñëw ndakaaru ba muy ñëw ñaari ginaar ak mbuusu gerte la ëndaale woon Dakar moom Gaston Mbengue wax na lan moo tax muy jàppale président Macky Sall yéen kaay gi sunu làmb xëy duñu xamalal ñu combat bi nga xam ne moom la Gaston Mbengue tëggoon diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux combat boobee ci yàqu la jëm waaye nag ci ay xibaar Luc Nicolaï ma ngi jéem a dox ngir organiser boobale combat waaye Balla